chacun saura à quoi s'en tenir. Mais nous retenons que pour l'idée générale, il s'agira d'identifier les parties prenantes de la gouvernance alimentaire pour la commune de Kungel, de valider aussi un programme participatif de renforcement de capacités sur l'alimentation et la nutrition, de manière globale, hein, très succincte. Je ne pourrais pas maintenant plonger sur le fond du dossier parce que je n'ai pas tellement fouillé le document. Mais les techniciens y reviendront et seront très clairs par rapport à ça. C'est sur ces termes-là que je voudrais, au nom du préfet du département, déclarer ouvert l'activité de ce matin qui prendra quatre jours. Et nous prions pour que ça se passe dans d'excellentes conditions au grand bonheur de la population de la commune de Kongué. Je vous remercie. La Division ISN, donc la division de la nutrition et de l'alimentation au sein de la FAO, devrait et de démarrer beaucoup d'activités liées aux systèmes alimentaires territoriaux. Donc, des activités de projets liés à l'amélioration des systèmes alimentaires qui consistent à la nutrition, la production, la consommation, le transport, la logistique et même la gestion des déchets au sein des territoires. Oui, toute la chaîne, c'est ce qui compose les systèmes alimentaires. Et ces projets sont en train d'être déroulés dans plusieurs parties du monde. Ce projet qui nous réunit eh, a démarré depuis euh, le début de l'année 2020. On a accusé beaucoup de retard euh, à la COVID. Et euh, dans ce projet-ci, d'autres pays sont impliqués, à savoir le Rwanda et l'Équateur, qui sont en train de faire les mêmes activités avec la même approche qui consiste à l'approche système alimentaire territorial, le SAP. Voilà pourquoi nous avons euh, démarré ces activités avec deux... Euh, euh, je dois parler en Wolof, peut-être. Nous avons fait la même chose pour l'Équateur. li tax n'ak a développé projet SAP yi moi dañu bëgg mbir mi jóge acteurs les véritables acteurs maanaam expression de besoin bu jóge ci véritable acteur yi bu ñu toogee saytu ko ba décider dañu def benn document de projet mais document de projet boobu taxaw benn place maanaam figé wul dañ koy ñëw indi ko ci acteur yi wax ak ndoog ñoom tojandoog ñoom approche territoriale sax mooy ñëw Koungheul def diagnostic wax ak yi ba génne seeni priorité def plan d'action prioritaire doog a mën a réaliser activité projet bi loolu mooy approche sax ci loolu nag dañ ci lëkkaloo ak euh, des acteurs yi nga xamante ni ñoo gën a mën a souvent euh, liggéey ak communauté yi mooy ONG yi ci lëkkaloo euh, ñun FAO ak ENDA ECOPOP lëkkaloo ci ak ONG PAIDD représenté par monsieur Mignane Diouf ñu ngi ci lëkkaloo ak SICODEV représenté par madame Khady Diané Ndoye Nous avons ci war ndax de régulation des marchés publics ndax marché mooy système alimentaire donc loolu pour vraiment répondre à la demande de la population par rapport au ça. looloo waraloon monsieur le préfet suñu teewaay Le projet bi nag ñi ngi commune objectif projet bi dafa dañuy liggéey ak benn commune euh, urbain ak benn commune rurale pour mën a permettre ñaari euh, communes yi mën a ànd ñoom it lëkkaloo ndax am na ay échange yu war a am am na ay connexion yu war a am am na la nga xamante ni euh, waa Koungheul ñu ngi koy dundee waa Bambilor soxla nañ ko am na xam ne waa Mbambila ñu ngi koy dundee waa Koungheul soxla nañ ko loolu yëpp pour favoriser les connexions pour développer les systèmes alimentaires ñaax leen ñu jàpp ci pour que projet bi mën a réussir parce que su réussiree dina tas ci Sénégal phase pilote la boo xam ne moo nekk nii ci diggante euh, Koungheul ak Bambilor lii ñu def ni tey ak euh, ONG Payet euh, Sikodem ak Enda Ecopop def nañ ko à Bambilor donc dañ ñëw fii pour def ko ci ñeenti fan suñu paree incha allah dinañ fi ñëwaat pour defal leen. restitution yi nga xam ne moom moo jógee ci euh, yenn yi. ci ñaari dëkk ci Sénégal muy Bambilor commune de Bambilor ak commune de Koungheul euh, mu jëm ci fànn boo xam ne bu am solo wàllu nutrition ak sécurité alimentaire maanaam lu ñuy dundee ak lu sell mu nekk nag projet boo xam ne dafa xaw am mais yaakaar naa ne incha allah techniciens yi dinañ ci gën a ñëw euh, li ci am solo rek ñi fi daje tey dañ leen tànn pour que. liggéey bi ñuy war liggéey ginnaaw bu ñu génnee ci atelier bi mu nekk liggéey bu mucc ayib ñu dem ba nga xamante ne Koungheul en tout cas département bi dina nekk gox boo xam ne lépp lu nit di bëgg a dundee dina fi mën a am en abondance mais aussi mu ne amin amin boo xamante ne amin bu sell lay doon kon loolu moo ñu fi dajale tey kon euh, dañuy sant nag FAO préfet ci à travers sa représentante ci koom-koom gi nga xam ne jël na ko ressources yi mu jël pour ñu ci programme bi muy programme bu am solo bo déparé Dakar ni mu ko waxee léegi <coughs> bugg a ndékki da nga total buntu mairie na fa fekk forox jaay loolu nag dafa nekk loo étiquette boo xam ne ah neex na mais nag lu ñu sécuriser la lu valoriser waral suñu autorité ne ñun en matière de sécurité alimentaire ñu ci war a taxaw lañ dem rayante ci àll bi dem uti ay partenaire ba ñu indil lu ñu mel nii kon nag ñu ngi xaar juróomi fan yi wala ñeenti fan yi ñu fiy def ñu ànd ak tey ànd ak dégg ànd ak dal xam ne lii du caaxaan nit ñi nag dañuy tàmm bu ñu ñëwee ci séminaire wala bu ñëwee ci atelier bu naree gudd rek ñu rocceeku du dox yeneen i soxla ndax yow boo defee loolu bu ëllëgee di nga mën a rendre compte ñi la yónni woon wala ña la mandaté woon wala li taxuñu tànnoon la nañu góorgóorlu ubbi suñu nopp ubbi suñu xel déglu njëriñ rek lañ fiy jëlee kaay yi ma dimbale la mooy kaay ma développé la wax dëgg ñii loolu moo leen fi tax dikk ñu ngi leen di ñaanal ñu dal fi jàmm ñu leen di ñaanal séjour bu neex leen xamal ne daal ñun collectivité territoriale yi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi toogal population yi nous sommes prêts à vous accompagner nous allons vous écouter et nous allons appliquer les applications les les les les conclusions qu'on va tirer de ce séminaire jërë ngeen no waxtaan ak askan bi ñi ni ñu bëgg a doxale ci ñeenti fan yi euh, xam naa bu fekkee ne euh, préfet nangul nangul nañu ko bu ñu dañu bëggoon bu ñu jeexalee euh, présentation bi ñuy def nii ci agenda bi ñu mën a suspendre waxtaan bi pour mun a may faale nekk ña ngeen ni am nañu def ci ci kilifteefu ci ndigalu préfet Euh, donc agenda bi moy bés bi ñëk tay moy li ñuy def à atelier bi euh, buñ ci euh, buñ ko je def présentation yi té lool def na def nañ ko pour gagner temps euh limay def ni mo ci mom lañ ci toftal moy ñu waxtane agenda bi buñ ko euh pause café buñ Euh, suñu mbokk mi euh, suñu nattango bi nga xam ne moo fi toogal ministère ci wàllu technique bi muy Ousseynou Kébé dina euh, ubbi liggéey bi ci wàll wi nga xam ne mooy ñu saytu ñépp ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu alimentation ci Koungheul ak boor ba mën a féete nag nañ ko waxtaanee ba mu bañ teg baaraam ci ñépp ñi nga xam ne ñan la ak fu ñu féete ñooñu ñëpp euh, dina am moom lu mu ci lu ci wane ci gëstu wante euh, jàpp nañu du doy parce que yéen ñi fi dëkk yéen a gën a xam seen dëkkuwaay nu mu nu mu ni mu mel ak ñi ngeen nekkal ci wàllu woowu ak say doxalin lan moo aussi loo li nekk li nga xam ne aussi daf lay gàllankoor ci say ci say doxalin baax na aussi ñu teg ci baaraam parce ñëpp xam nañ ne ku ci nekk fa ngay liggéey la ngay liggéey du lépp nekk loo xam ne rek day dox na ko bëggee wala na mu war a doxe ah ñu ñu xam ko xam aussi la mooy seen i euh, centre d'intérêt la moo leen yitteel dëgg dëgg dëgg ku ci nekk nga féete lu la lu la yitteel parce que am na solo aussi nit ki nga xam la ko yitteel lan la nga mën ànd ak moom euh, xam aussi lan mooy ay soxlaam ah lii de moom a yitteel man nag sama soxla nag lii na yéeg lii ak lii ak lii ak lii ah lan nak li nak lay sentu moy attente ah ñu waxtane ko ah ku ci nek fa nga bu ñu ci pause café ko suba la inshallah buñ dellu siwaatee bala ñuy loolu yépp ñu gën parce que li ñuy travaux de groupe la ay nit da ngeen def ay groupe waxtane ko pour mu gën a ñu xam détails ah ba mu a ba mu restitution moy euh, sotti

ñu xool nan leen mën a saytoo nan lañ dugalante est-ce que bii am na njeexital ci bii wala bee am na njeexital ci ci beneen bi xool daal nan la ñu nan la ñu saafonte wala nan la ñu féewalante ah ñu waxtaane ko loolu nag mooy bësu bësu suba bi incha allah bu suba jeexee incha allah yàlla nañu ko fekk ak jàmm

ndollent hmm, pour ñenn ñi pour gën a duufal suñu xam-xam ci wàllu woowu ci wàllu alimentation moo xam nutrition la moo xam en tout cas lépp lu jëm ci wàllu alimentation te loolu suñu mbokk yi nga xam ne euh, SYCODEV gën nañ cee am taxawaay dañ ko waxtaaneek ak ñun ñëpp ñu jox ci suñu xalaat ni am lu ñu présenté euh, bu ñu ko présenté ba pare ñu xool lan lañ ci mën a dolli wala lan lañ ci mën a joyanti

que soxna Koumba li doon na ko wax ci le système alimentaire territorial ci lépp lu nekk chaîne alimentation ci commune bi nan la gagner. pour am système alimentaire bu mucc ayib nan la wara nan la wara doxé fi nan la wara togué nan la wara teudé ci ci commune bi sen gis-gis lan la ci pour am un système alimentaire durable loolu buñ ko waxtané ngén woné aussi sen sen seen gis-gis ci activité prioritaire ne ah buñ né ni la wara teuddé suñu système alimentaire pour mu mucc ayib ci dëkk bi kon bok djégo yi dañ wara a dafa xawa metti fi ci ci nit ñi donc remboursement transport tam dina am sobe yalla comme ça ñu bu boobaa inshallah allah ajjuma ñu tagato parce que dañuy sóor aussi julli juma day am il faut dem waajal ko motax tax li ñu gën a teel rek mu gëna bax ñi mën a dox yenn yitte yi juma bu boobaa incha allah ajuma bi comme mooy dernier jour de semaine bi euh, dina may ñenn ñi ñu doxal li ñu war a doxal balaa weekend bi di dugg donc loolu moo nekkoon loolu mooy xolu waxtaan li préfet ñeenti fan yi ñu bëgg a ci njëkk ak teraanga rek wala ma waxtaan la rek vraiment sottante xalaat weccante ba am lu duuf incha allah moo xam ne day askan yi parce que askan bi lay nekk comme ni ko président Thiam waxee sànq ni préfet ak sama sama yi ñu donc euh, lool mo nekkoon teunk ci waxtan bi maa leen di balu ak bu baax nak euh, di ñaan yalla yalla defal ñu sutura ak mucc ba nga xamé ne bëgg a ñu def ko ci jamm préfet. ma ah, pardon voilà mon nom c'est Koumbali Diaw je suis expert en système alimentaire pour la FAO. très bien un atelier consacré sur euh, la bonne gouvernance de l'alimentation alimentaire ici à Punguel. revenez encore sur l'importance de cette rencontre. Voilà, donc euh, je vais, si vous le permettez, revenir un peu sur le contexte qui consiste à une approche de la FAO qui est appelée approche SAT, système alimentaire territorial, que la FAO est en train de développer dans beaucoup de pays du monde. Et c'est pour ce, dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui à Kungel pour élaborer un document euh, avec les acteurs concernant la gouvernance alimentaire territoriale liée au SAT donc au système alimentaire territorial. Très bien. Aujourd'hui, euh, vous êtes en train de renforcer un nombre, de populations de Kungel. Revenez encore un peu sur ce nombre et quels sont les objectifs euh, attendus mhm. Alors, avant tout, nous avons euh, fait une analyse, donc un diagnostic des systèmes alimentaires de la localité qui consiste à l'analyse que nous avons fait avec avec la DPDT, à travers le ministère des collectivités territoriales. Et ce diagnostic consiste tout simplement à comprendre dans Kungel qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui est vendu au marché en termes d'alimentation toujours, qu'est-ce qui est transporté. Donc toutes les différentes composantes des systèmes alimentaires sont analysées au niveau de Kungel. Et à partir de là, nous devons comprendre les acteurs. Qui sont les acteurs et c'est ça les aspects de gouvernance liés à l'alimentation au niveau de Kungel. Et ces acteurs-là, nous avons besoin d'eux pour comprendre l'expression de leurs besoins. Pour ce qui concerne toujours les questions d'alimentation à tous les niveaux. Et c'est grâce à ces acteurs que nous pouvons comprendre quelles sont les priorités en termes d'alimentation au, niveau de Kungel.

Euh, li ñuy wax pays euh, en développement dëkk la yoo xam ne dañuy euh, nas ay pexe pour fexe ba seen toogin mucc ay te toogin boobu wàllu lekk ak naan lu ci am solo la parce que bu ci bokkul rek dara du dox loolu moo tax kon projet bi nga xam ne FAO daf ko sumb ànd ceek réew yi nga xam ne mooy Équateur Rwanda ak Sénégal dafa nek projet bu am solo pour ñun suñu doxalinu réew rawatina nak bañ ci tané ñaari commune nga xamné moy mooy Bambilor ak kungir gi ñu nek tay euh ñu wara ànd ak ñom gunge len ci walu projet bi ba ñom sen togin ci walu lek mu a nekk toogin boo xam ne toogin bu sel la togin bu méngoog li nga xamné askan yi mom la soxla ci walu lek lolu nak euh moy euh nek li tax Euh, bi euh, FAO sumbee projet bi ba léegi euh, ginnaaw bi ñu demee ci ñaari communes yooyu ba def ndorteel gi yëgoo bi ak waa askan bi yëpp ñooy nag dañuy sumb liggéey bi pour mën a ànd ak waa dëkk bi askan bi saytu lañu war a saytu sànq Kumba Kumba li wax na ko lu jiitu loolu am na lu ñuy am na saytu liggéeyu saytu bu ñu njëkk jiital pour xam li ñuy wax système alimentaire mooy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu lekk gi ci biir ñaari communes yooyu rawatina Koungheul gi ñu saytu ko ba settantal ko ba xam euh, nan la toogee jubluwaay bi lan la wante nag loolu doyul ne olof Njaay na nett li mu nga gën a ci gémmiñu borom moo tax FAO ànd ceeg euh, SICODEV ànd ceeg PAED ànd ceeg ENDA ECOPOP ci euh, njiitalu ministère collectivité territoriale yi

dina tax ñu mun koo jël gën a xóotal saytu bi xool nag ñu ñëpp bu ñu àndandoo fan la ñuy teg suñu tànk ba ku ci nekk ci askan wi la ngay lekk méngoog la nga xam ne moo gën ci. saytu euh, naka la nit ñi toogee ci jël ay décision yu mucc ayib ñu ngi fi ci wàllu commune wàllu département di ànd ak askan wi ñoo ñëpp bu ñu leen dajalee nag xam ngeen ni il faut xalaat ko fi il faut aussi saafonte am fi weccante xalaat am fi ba ñu xam ku ci nekk la mooy sa jafe la mooy sa jubluwaay. lan nga jàpp ne ci tënk buñ ko doxalee euh, noonu euh, askan wi nañ gis seen bopp ci wàllu alimentation ci Koungheul te loolu nag FAO daf ci sawar ñun ñii rawatina euh, ñi nga xam ne ONG dañuy liggéey ci wàllu woowu guddeeg bëccëg rawatina nag FAO nga xam ne moom loolu moo tax mu sosu ah ànd ak état yi gunge leen ci wàllu alimentation ba seeni population mun a dund dund gu la moo tax ñun bañ ñu ko waxee lañ cee sawar lool. ni ci def saware ni ci PAYDE saware noonu li ci enday ko fa saware ci FAO pour japp ci liguey bi euh, parce que japp nañu ñun ci programme commune euh alimentation daf ci wara am place ci politique politique locale dafa wara am politique alimentaire yu leer parce que lolu mo moy euh, xolu mbir mi parce que alimentation bu doxul dara du dox motax tax kon ni nii communes di teug ay politique ci walu ndox di teug ci politique ci wàllu euh, euh, euh ñuy wax affaire domaniale ci walu souci di teug ay politique ci walu éducation ak formation ak xeet yoyu dafa wara am politique aussi yu leer ñu duggal ci seen budget yu demee nonu ba nga xam ne lépp lu jëm ci walu alimentation da ci am place bu mucc ayib ga euh, di yenn say seen doole du demee nonu wante japp nañ ne pas-pas bi ñu andal bay def yenn yi ci àndee ak pas-pas bobu dina gën a taxaw rawatina nak ne ci biir conseil municipal bi day am aussi ay kuréel yu ñuy wax ay commission technique commission technique yi yooyu jàpp nañ ne euh, wàllu alimentation du ci am place la parce que xam nga alimentation day laal mbay suuf bi euh, commerce bi l'hygiène, ah, day laal hygiène yooyu yëpp da koy laal donc dañ jàpp kon aussi ci biir conseil Municipal, yi rawatina bu Koungheul jàpp nañ politique alimentaire war aussi en place Donc, kon li ñuy def tey jii nii day parce que élu ñi ngi ci biir maire premier adjoint maire moo jiite liggéey bi ci ndigalu euh, euh, maire euh, Mayacine te ñu ngi koy Camara ñu ngi koy nuyuwaat di ko sargalaat ànd ci gis naa ne salle bi bari na ay élu war na ay aussi ñi nekk ci ay commission technique ak yooyu maire jiite leen dañ koy rafetlu donc loolu daf ñuy jox espoir ne ñii nii ku ànd ak ñoom di nga am yaakaar ne fa nga jub fa ñu jublu yàlla nañu jàppale bañ egg fak jàmm ci njàppale ñu euh, bu FAO ñu koy remercier aussi parce que FAO pas-pasam pas-pas bu rafet la di remercier aussi autorité administrative yi parce que gis ngeen préfet ngi nii teew and nar a ñun liggéey bi ba fu muy fa muy jeexee loolu da lay wan ne aussi état bi bàyyiwul état bi am yu mu sumb gis nañu covid bi génn nañ fi am na décision yu mu jëloon yii yëpp day nekk fekk si loolu ci initiative yooyu état am ak taxawaay bi mu am pour mu gën a duufal bon voilà merci beaucoup peut-être se euh, réjouir en tout cas du choix porté sur Congo, en tout cas remercier le ministère euh, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des collectivités territoriales remercier le partenaire technique et financier la FAO mais aussi les partenaires de mise en œuvre à travers ENDA ECOPOP Psychodev Payet, euh, remercier le conseil départemental aussi avec la structure institution avec laquelle nous travaillons en parfaite synergie. je dois dire, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, que c'est un projet quand même extrêmement important, un projet soft, mais important, qui vient en tout cas dans un contexte particulier. J'avoue que la commune de Congo a toujours travaillé dans cette dynamique-là, en amont déjà, avec euh, le projet de cantinisation euh, au niveau des espaces scolaires pour prendre en compte les enfants, pour leur permettre en tout cas de mieux travailler à l'école. Euh, avec le PAM, nous avions initié ce projet-là. Donc ce, ce, projet-ci, quand même, euh, je peux dire que c'est une continuité en tout cas euh, de cette dynamique-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où aujourd'hui les systèmes alimentaires sont extrêmement importants. Kungol étant une zone carrefour, Auparavant, c'était un grenier où, en tout cas, l'essentiel des produits agricoles, en tout cas, était bien fourni. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a eh, effectivement des difficultés à ce niveau-là. Et je pense que nous devons refonder, en tout cas, ce grenier-là. C'est pourquoi, dans cette dynamique aussi, on n'a pas pensé uniquement à formuler un projet soft, mais on est en train de réfléchir, en tout cas, sur des infrastructures pouvant supporter, en tout cas, ces activités-là. C'est pourquoi on a créé le deuxième marché de Kungal, que nous avions dénommé le marché céréalier de Kungal, qui est au quartier Santi. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique aussi de construire un marché au poisson euh, dans le quartier Kungalville. Cela prouve que en amont, il faut créer l'environnement, mais il faut aussi créer les infrastructures pour permettre aux populations, en tout cas, de mieux s'épanouir et d'avoir un cadre idéal pour pouvoir, en tout cas, gérer en tout cas ces produits-là, mais de façon beaucoup plus saine. Les femmes transformatrices ont fait beaucoup de résultats. Aujourd'hui, il y a une femme qui est là, Kharitou Khalei, qui a deux fois eu le prix, en tout cas du président de la République. Cela prouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, la dynamique, en tout cas, est là. Euh, la matière est là. Il va falloir peut coordonner tout cela, mettre en œuvre et créer un cadre pouvant permettre, en tout cas, de s'orienter vers d'autres perspectives. Et c'est ce que, en tout cas, ce projet-là est en train de faire avec les partenaires de mise en œuvre. Donc, je pense qu'à la suite de cet atelier-là, un plan d'action sera élaboré, lequel plan d'action sera suivi, mis en œuvre et évalué pour nous permettre de nous orienter vers d'autres horizons. Je pense que c'est ce qui est important. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui sont là, ces acteurs-là, pour leur engagement et leur dynamique. En tout cas, euh, le conseil municipal prendra toutes les dispositions euh, pour un suivi effectif de ce projet. Euh, nous mettrons en place, à la suite de ce cadre qu'on va mettre en place, un point focal et un dispositif de suivi-évaluation. et Parce que c'est important. Aujourd'hui, des projets, c'est important, mais s'il n'y a pas un dispositif de suivi et évaluation, ça pose problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, toutes ces, toutes ces questions-là seront entièrement prises en, compte euh, pour un meilleur, euh, en tout cas, euh, déroulement et suivi de ces projets-là. Accès durable à une alimentation saine et nutritive à collègues Afrique. Très bien, Donc nous, on est euh, une organisation de consommateurs et de plaidoyers documentés et nous intervenons dans le cadre de ce projet sur les aspects de programmes d'alimentation scolaire euh, par, la mise en place euh, de jardins agroécologiques au sein des écoles, mais surtout l'aspect de renforcement des capacités sur les communautés éducatives, sur l'alimentation, la nutrition, mais aussi toutes les questions liées aux aux pratiques agricoles durables donc l'agroécologie. Donc nous, nous allons renforcer euh, les capacités euh, des communautés, donc de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, pour que euh, l'alimentation soit beaucoup plus saine, soit beaucoup plus durable. Et toutes les questions aussi liées à l'éducation environnementale auprès des élèves, et l'alimentation ainsi que la nutrition. il Dalam bahasa Arab, sini semua orang orang kalimatan. projet pourrait être pertinent pour cela. Nous apprécions cela à sa juste valeur et manifestons toute notre disposition, toute notre disponibilité, toute notre collaboration pour accompagner ce projet pour la région, qui n'est rien d'autre que le bonheur de la communauté, de la communauté. Alors, je pense que l'alimentation est une vie essentielle pour l'être humain. Si maintenant nous travaillons à renforcer la capacité des acteurs qui évoluent sur toute la chaîne alimentaire, ça permettra d'avoir en tout cas une alimentation et durable, pour nous, Et ne serait-ce que pour cela, ça nécessite extrêmement d'efforts, nous en tant qu'autorité. Donc c'est la raison pour laquelle nous présentons ici, vraiment, nous l'avons jugé nécessaire, malgré notre de Alors, pour dire que nous avançons de longtemps là par rapport à ce que nous devons aussi qui sera Tout ce qui sera nécessaire à vous, nous devons Aucun effort ne sera bénéfique pour la raison de ce projet parce que nous sommes extrêmement Merci Merci. Merci.